asalaamaaleykum téléspectateur seen YouTube Mahwa TV euh, tey nag ñu ngi fii toog ak Serigne Bamo Dieng moom Serigne Saliou Mbacke euh, Serigne Bamo Dieng di nit koo xam ne di nit ku yàlla baaxal di nit koo xam ne tamit kenn ku ne xam na ko ci euh, ñaan ci wàllum dimbali doomu aadama Serigne Bamo Dieng ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu ginnaaw bi ñu la fekk see fii sa kër. salaamaaleykum wa rahmatullah moo ngi siyaare tey nuyu mbokki jullit yi. ak mbokki taalibey murid yi ak waa réew mépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou di ñaan mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mboolem julli di mboolem taalibe yépp ñoo ngi leen siyaar di leen ñaanal ci siyaar waa Mahwa TV gii ma seet si tey ñu ngir ñu def waxtaan yi ñoo ngi leen nuyu yéen di leen siyaar waaw jërëjëf Serigne Baye Mor Dieng comme ni ñu koy defee saa rek tey ñu ñëw si sa seet la ci walum ñaan ci walum lan dimbali doomu aadama sëñ Maama ginaaw bi nga nuyoo ba par lan ngay wax euh, ñi lay diglu ñu lay tawlu waaw ginaaw bi ma nuyoo man mom ci liñ ma xam rek muy sant sëñ tuwa bu baax baax di contane fu ma toll di bekk ci Serigne Saliou moom momi diko sant bu baax baax te rafet lu jotaay bu baax baax baax na naa bu ba ci gëna ci biir waxtaan yi dinañ mëna léral yu baree bari. incha allahu rabbi sëñ Baye Mor waaw gis dégg ngeen sëriñ Baye Mor Dieng moom sëriñ Sall ni ko waxee euh, sëriñ Baye Mor ngay yëngu ci wàllum ñaan mhm. di faj di si mel ni ndoxum siti ak euh, góor gu taxaw ak di faj di dimbali koo xamante ni dafa bëgg ay kayit te mënu ko am lan ngay wax ci loolu waaw comme ni ni nga ko waxee rek ndax fi ñu toll nii wàllum ñaan gi ñu toll dafa bari te bëri ñu ci ne pare site yi bëri lool nga xam ni saa soo xëyee da gis kuy ñaan ku dugal waaye li ñuy wax ñun yàlla rek lañ koy seeral moo tax comme noonu nga ko waxee rek xam naa ni yow ak ñu baree bari sax taxoo leen wax ji waaye ñi xamul rek pour ñu xam waaye ñu bari xam nañu la bu baax a baax ñuy jëflante bi ñu baree bari comme noonu nga ko waxee ku ku ku bëgg këyit wala ku feebar euh, ngóora ak yeneen ak yeneen yu baree bari rek buñ ci déggoo rek. Ah, am nañu yaakaar yàlla dana la ko saafara ci baaxu sëñ Saliou. waaw dégg nga ni nga ko waxee si baaxu Serigne Saliou kon sëñ Baye Mor euh, dégg nga euh, ñaankat yu bari daanaka maam seenum ñaan dañ ci dóor ak yu baree bëri yu nag gis nañ yu bëri yoo xam ne tamit maam génnoon ko ci ci ci ci ci caméra bi ah, te xam na kan mooy dëgg-dëgg sëñ Baye Mor dégg naa këyit moom daanaka ku ko bëgg moom ak fu mu mën di nekkal soo jokkoo moom soo jokkoo ak dina dina mën a jàppandi. waaw. Euh, bu dee wàllum këyit na am na ñu ci xam bu baax a baax ñoo xam ne euh, Europe la ñu ne euh, ñu ciy déggante ak ñoom ñu leen ci jàppale bari na lool bari nañ ci xarit waaye yàlla dogal comme di fës nii sax euh, sëñ Mbaye Moodu mii yow dangaa baax rek te bëgguñoo jàll rek waaye ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee wàllum ñaan léegi wàllum dóor dafa bari waaye ñun ku ñu xam xam ni dóoruñu ndax fii ñu dëkk ci jàng bu luyeewul ñun buñ luyee buñ dóoree kii di toxoo ñun suñu kër lañ ne boo toxu ñu randuwul heure boo ñëwee fekk ñu te liñ lay defal da koy gis jërën insha allah rabbi waaw dégg ngeen ni wax insha lu muy def rek yàlla suñu borom subhanahu wa euh, la ci ànd ba mu ci ak moom sëñ Mamour dégg nañ ci wàllum kurus euh, muy loo mën trop waaw kurus nag moom euh, suñu borom dogal na ne am na lum ci yàlla may yàlla bu lay may moom day jël ak mayam may la te du la tàggu te danga koy liggéey sonn ci lool te doone li ma may mayu ko kenn waaye da ngay sant bu baax a baax ndax ñaan bëri nañ dóor waaye bëri nañ ko man man xam naa ne ko man bu baax a baax di ko rafetal waaye wàllum kurus tamit ñu ngi ci sant bu baax a baax mën nañ ci lu baree baree baree bare kuñ ci dégganteel rek sa aajo nu mën a mel suñ ko mënee saafara dañ la koy daari wax incha allah rabbi waaw. ndeysaan dégg ni wax ne ne wàllum kuréel moom suñu borom may na ci lu yaatoo yaatoo yaatu loo xam ne mënut a toog di ko wax euh, sëñ Ba nga kon dañuy xuus ba rek dugg ci biir gën a dugg ci biir waxtaan bi euh, dégg nañ ba tey ñu ne wàllum bind su mel ne koo xam ne dangaa tëju maanaam su mbir yëpp tëju dégg naa sëñ Ba moom loo xam ko joxe moom soo ko sangoo moom loolu saafara waa wàllum tëju googu ngay wax man boo tëjoo ba ba ba ba ba. sa liggéey ngay liggéey te mënoo am xaalis wala sa loxo bënn loolu moom àpp laa lay àpp boo ñëwee ci man bu njëggantee bu dee da nga tëju li ma lay defal bu ma ko defalee àpp laa lay jox ma jox nag balaa balaa balaa mat ma lay jox nga koy jëfandikoo balaa àpp bee mat da nga gis changement gis gis gis lépp di dox ci baaxu Serigne Saliou Mbacké da nga gis lépp di dox Laisang sering bay jeng ñi ngi bi nak anu jeng jantul wa anu nak sering bay jeng mom sering saliw mbacke mi ngi dëkk janatul mahwa ke puwa kan nak bungo kosiati nang séti da ngay woté ci numéro téléphone yoy e kana bit. bi di nga jokk so joko sering bay jeng sering bay mor dégg na batay nek sey légui day day nakal torop ak ci façon bëpp rek dégg na loy mom amo ci waaw bari na beri na sayu, yu yo liggéeyal naa ci yàlla liggéeyal ci sa Saaliw te yàlla rek tax mhm. waaye wàllum sëy buñ ko xoolee ba xam ni demee ndax du du du da ngay jël góor gi noobal ko jigéen ko walla nga jël ko jigéen noobal ko góor gi fekk àq am na ca loolu ci man doon rek danañ ko xool bu baax a baax ba xam ne ci war rek ñu def ko incha allah problème boobu it ku ko am boo ñëwee daan dan daan la defal loo xam ni moom dina doon taw feex incha allah rabbi ndax sëriñ Bamba Dieng ngay seet waaw damay seet damay seet damay seet te boo ma wooyee téléphone mhm. sart yi ma lay teg boo ko nangoo ma seetal la boo ñëwee sama këriñ sart yi ma lay teg boo ko nangoo ma seetal la waaw wax na lu bare bare bare si loolu kon gaaw leen woote na numéro yaa ngi leen suuf écran képp ko xam ne da am tëb ku jaaxle boo xam ne yow la tëj sa bopp rek woote Serigne Baye Mor Dieng mi ngi nekk foofu ci diwaanu Jannatul Mahwa ba tey dana fuus ci waxtaan wi euh, gën a yaatal lépp sëñ Baye Mor Dieng dégg ñu ne ba tey yaa ngi am waaw loolu loolu nag gaa yu baari dañ koy nangu woo gaa yu bari dañu wax jaan sax ay jaan ak yeew waaye kiimaan yi daal bëri na foofu daal na kiimaan yi daal bëri na lool lool yoo xam ne yu raw jaan sax bari na lool yow xam nga xam xam nga bu baax baax man man am naa waaye boo xam ne jam ko sungu soo xam sungu soo moom marital yi waaw loolu am na waaye waaye comme boo toogee ci lu mel ni média naan jaan ak ay lii ay laag yooyu yooyu yooyu yooyu nit ñi sax lay dañuy jël jaan yekki ba ñu yor ko yooyu daanaka du ay kiimaan waaye yu baree bari yow xam nga ko te gis nga ko noonu noonu nag bëgg ñu di fësal lu baree bari waaye ku ku jokkal daal danañ am loolu la ma loolu doy incha allah. ndeysaan Serigne Gama Dieng ko moom daanaka fes gi sax du ko bëggut xëy na lii duñu ko forcer rek ah, topp nañ koy yooneen ngir bëgg ko am mais nag jàppandi nag waaye nag dañuy sant yàlla ba mu jàppandilee loolu ñun ñi seen YouTube Mahwa TV. di ànd ak xasaay TV ndeysaan. Ah, sëñ a dégg nañ ba tey ngi ne wàllum wàllum wàllum wàllum këyit wax ku bëgg a tukki wala ku dem ba tukki te amoo këyit yow di loo si moom ñu naan loolu moom ay sànq si jox maanaam soo ko defee moom ay fan koy àppal waaw bëri naa ci ay xarit lool ñu ma xarit mujj doon ay xarit mujj ñu romb affaire ñaan ñoo xam ne damay déggante ñoom dañ newoon ci réew mi mënuñoo ñëw waaye ñëw nañ ñëwati loolu moom def yàlla defal nañu ku bëgg a demit sa këyit am fu mu tëye bu ñu ko la ci ñaanal ba lépp sotti di baaxul am na ndomba yu jox xaane ku ko takk moom fekkee sëfoor nga tamit maam ndogum oto moom da nga ci mucc. waaw loolu am na. loolu am na am na ndomba yoo xam ni boo ko takkee oto moom yàlla dem na ci musal ak leneen ak leneen. léegi nag doo dugg police. déedéet doo dugg police police tamit ku fa nekk bëgg génn mën nañ laa jox loo xam ne moom boo ko jëfandikoo sax doo ko demee woon ak ci police da ngay da da nga génn incha allah. ndeysaan dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen li mu wax kon loolu ay yoo xam ne mi ngi fii ci Serigne moo Mor Dieng xasaayit moom Serigne Saliou Serigne Baye Mor ba tey dégg nañ ci wàllum wàllum wàllum kii nu ñu ko gëstoo sax ci wàllum wàllum wàllum kër. comme ku bëgg a taxawal kër di ko seet ak yooyu ak ci war def yëpp dinaa da nga koy kii. waaw kër ku koy sant buñ ci déggante ndax loo gis rek daa daa daa daa daa am yàlla sax ñi muy def borom daraja ci àdduna da leen di sàkkal bis bu ñu ñëw mu doon bis bu rafet waaye loolu lépp dañ la ko xool boo waree dem ci sa kër xool loolu wax la na ngay def wax la na ngay génne te boobaa it tawféex rek nga ciy gis incha allah. ku ñu ci déggante rek moom dañ ci taxaw. jigéen ju bëgg jëkkër. waaw jigéen ju bëgg jëkkër it moom dama dama dama lay def loolu ngay def rek man damaa bañ a gisante ak yow sax waaw dama def loolu li ngay def rek moom ca woo bala nga ko génn da nga da nga am allah. waaw dégg nañ peut-être am na ay footballeur yoo xam ne ku bëgg a dem football yi génn réew mi yooyu. waaw bëri na ay footballeur yu may déggante yu ma xam. ñu mhm. ne ci réew mi ak ñu ne bitim réew waaye ku bëgg génn moom buñ ci déggante rek loolu loolu loolu problème incha allah rabbi. ndaysaan dégg ngeen ba tey euh, sëriñ Ba ma jëg li mu wax ba tey dañuy gën a si waxtaan wi dina wax ne képp ko xam ne soxla nga ko rek bi sëriñ Ba moom ba tey dégg euh, ñu ngi ci yow nan am na lu a wax loo si lan gën gën ñu koo leeral sunguf si. waaw sunguf si moom sunguf du benn sunguf sax ndax. sunguf yi quoi eh, waaw waajur boobu mu ñam ba ba wax la ko. Mm-hmm. am na yu ko gën a garaaw lool mi ngi ñun lu waaye daal di yëngu te bëgg caa bu ñu déggantee incha allahu rabbi dinañ la teg ci lu leer a li ma la waxoon léegi rek ñun jàng lañ dëkk tugu ñu rënduñ dóoruñu jot kaw ku ñuy seet boo suñu kër bu ñu fekk da ngay xaar tuuti ñu fekk la waaw ñun fii lañ ne. waaw dégg na ba tey dégg yëngu suñu sama duwaañ la ñu doon ko duwaañ la doon mooy ñi xaar ñi forom moom suñu ko xëy duñu gis duñu gisante ak benn duwaañ moom. déedéet doo gisante ak ñoom. doo gisante ak ñoom kooku kay. su ma la ko joxee bu la neexee nga woo ma ba keroog nga leen di romb ni mu romb na waaw boobu baax. ba gaañ ñëw rek. waaw ah. bëri na gaañu ko xam. waaw ah, ba tey dégg ngeen nee sunguf moom du duwaañ di la romb moom sunguf soo xam ne duwaañ di ngeen di juyante ak yëpp rek waaw. maanaam lan nga baaxawaat ci ci wàllum ñaan tamit ak ñi lay waaw li li ñuy waxaat mooy sant rek di sant Serigne Saliou bu baax baax. di xam nit ñi rek ne am naa yéene ci doomu yi ndax du xéewal dara euh, loo xam dañ koy sàkk ci ci bari tamit dimbali rek moom ñu tax a bari seq na ñoom loo xam ne du du alalu moo tax a jug lool. waaw la maam jaaro yi ak xob yi jaaro yi ak xob moom lu njëriñ waaw am na am na am na am na jaaro ak seen yoo xam ne xoot lay doon. bëri na bëri na bëri na gaa yu ko am ci réew mi ak bitim réew bëri na gaa yoo xam ne seen soxna wala seen mbokk dañ koy def rek man mën na koy yónni loolu ngi ci waaye suñu mbay moom loolu boo ko bëggee leeral fii day yàgg lool day yàgg lool temps amul waaye ku ñëw rek incha allahu rabbi dañ ci am lu leer nañ ñu ko soobee yàlla incha allah ndeysaan dégg ni mu ko waxee Serigne Baye Mor nekk foofu ci diwaanu Jannatul Mahwa di Serigne boo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci diwaanu Jannatul waaye ñëpp ràññee nañ ko ci diwaanu euh, Sénégal ak lu ko wër muy Serigne boo xam tamit euh, Serigne bu am yërmaane dimbali doomu aadama tax ko jóg xanaa ñaan gi sàkku ci alal dimbali doomu aadama moo ko kon képp xanaa soxla nga ko rek numéro yaa ngi suufu écran bi da ngay woo Serigne Baye Mor Dieng mi ngi nekk foofu ci diwaanu Jannatul Mahwa képp ku xaas soxla soo ñëwee ba jàkkee Serigne Saliou na soo ngeen gaaw def ay liggéeyam yi xante waaye day nekk yàlla suñu borom subhanahu wa neen mbiri nag luy loo xam ne toujours rek da koy jox ba lu nekk yàlla li yàlla moom da koy jox ba lu jox Baraka sëñ tàggatoo. waaw ñun ñu ngi sant bu baax a baax comme nañ ko waxee di ñaanal waa réew mi wax ne xew-xew yi fi am ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne dégg na xew-xew yi fi am di di di ñaan yàlla génn ko fi ci barke sëñ Touba barke sëñ Mountakha barke sëñ Saliou di wax Macky Sall mu gën a góorgóorlu ndaxte am réew boo leen jiitee bu la bu la ñeneen gënal na sam réew gënal la ba pare waaw te kaa yi mi ngi du wax ji waaye lépp ñun xam nañu ku déglu waxi sëñ Murtala si ab laat xam ni wax ju wér la du waxi caaxaan waaw ñuy waajal màggal Tuubaa gi di ko wax loolu ko sëñ bi waxee def ci alerte bu baax a baax a baax su demee ba xam lii mënut a nekk te ñoom dañ koy laaje kaa kaa yi mbëgg ñu jox ko tam may nit ñi jàmm ku ne nekk sa jàmm incha allah jërëjëf ñu Oh, jërë ngeen jëf ñi ngi àndoon nag waa seen YouTube Mahwa TV te ñu seet woon Serigne Ndamo Dieng Kassaye kon nag dina yemale foofu sunu kàddu di nuyu téléspectateurs siiw seen YouTube Mahwa TV yëpp di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq salaamaaleykum